jërëjëfati oustaz Maodo fay euh, gannaaw bi ñu delloo di la nuyu di la bëggee di la ziar di amati mbégte bu baax a baax si ñu ngi janook yow euh, ñu daal di dellu si on est jeudi aujourd'hui dernier numéro de la semaine maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziyaara bu baax a baax naka suba si. alhamdulilah rabbil alamin Diego Armando Maradona boobee nga daanele. waaw eh, def naa xam nga ci lu bëri ci wàllu xam-xam. Uh-huh. ak gis-gis ak it eh, analyse. waaw waaw waaw xam nga moom. Eh, waaw waaw xam nga moom football kat la woon boo xam ne bii dans les années quatre vingt ba quatre vingt six. Hmm. ba sax romb ko ba dem ci équipe yu bëree bëri demoon na Napoli xam nga fa la footballé ci Italie. Hmm. am na fa sax ay ngañaay ak ay trophées yu bëree bëri yoo xam ni def na ko foofule. ci Barcelone également jaar na fa mais xam nga. que euh, moom Diego Maradona à l'âge de dix huit ans ba avant mu am sax seize ans wala ay quatorze ans dafa ma soon a wax ne man li may rêvé li may gént mooy. ma football ba mën a am coupe du monde indi ko fii ci biir Argentine loolu loolu moom mujj na nekk lu yàlla dogal ndax en 1986 coupe du monde boobu nga xam ne moom lañ doon def ñoom ñoo mujj gagné euh, te moom également mu am benn but boo xam ne bii <laughs> dugaloon na ko euh, biit ba nag mbëkk la waaye mbëkk ba loxo loxo bi loxo loxo loxo maanaam Maradona moo ko dugal euh, ci biir camp yi ñu tuddee ko la main de jë parce que góol bi sax yëkkati woon na loxoom daan ne kii dafa dafa football bi waaye arbitre bi dafa validé woon but boobule. bit boobu ba léegi ñu ngi koy wanewaat du ko fàttalikuwaat alors Diego Maradona malheureusement malheureusement parce que à un moment demoon am ay problème ak wàllu justice bi ndax benn am na at moo xam ne mii sax euh, dañu jékki-jékki en 91 su ma juumul 1991 demoon nañ ba doon segg sax lenn ci deretam pour génnee toxique ak drogue bi nga xamee ne dafa nekkoon ci yaramam mu doon jëfandikoo yu mel noonu jàppoon nañ ko fi bàyyi waat ko après. mu reprendre football bi dem yàgg tamit muy def def jëfandikoo wàllu drogue ndax xam nga Amérique du Sud boo seetloo euh, boori Mexique ba ba ngay dem Brésil côté yooyu yëpp sax euh, boo seetloo wàllu wàllu drogue dafa am doole trop te ñu bare bare dañ koy jëfandikoo malheureusement loolu daf ko doon daf ko indiloon tamit ay tolof tolof daal ci carrière am mais nit la koo xam ne kii moom légende la boo xam ne bi daal légende bu mag a mag la ci wàllu football en tout cas. jërëjëf kon fàttali mbokki auditeurs yéen ngi doon déglu la mémoire vivante naan ko Abdoulaye Diaw. waaw Abdoulaye Diaw xam nga kooku nag moom. moo doon wax noonu di ñu eh, expliquer. dégg nga non pas non déedéet déedéet yemuñu sax <laughs> Abdoulaye Diaw dama ko àgg sax ci ci aw dàll. laa xaw la wala <laughs> xuwate. kon oustaz yow yëgoon ne kon. bi bi li ngay wax yëpp Sénégal la ngi naan mais per laa yaa ngi waxati. non non non parce que Abdoulaye Diaw non maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Ablaye Diop kay mën na maa jàngal jàngal wuuy ko kay <laughs> ko kay <laughs> non Ablaye Diop jot non kooku kooku ba yow tamit kooku du sama borom sax non quand même quand même dama ko xamee seetaan dama ko doon seetaan lu bare ah, bare bare bare ah, ah. ku bëgg Messi kat war a bëgg nag ak euh, euh, Maradona waaw ñoom ñoom ñaar nag ñoo bokk style. waaw gis nga bu ñuy footballé eh, xar eh, d'ailleurs xaritam la woon. waaw dégg nga Messi te ñoo bokk ñoo bokk réew. dégg nga sax Messi li mu wax. Messi nee euh, Maradona dem na waaye il est éternel. maa fi. même El Hadj mi gis nga seede yi mu def ci ñoom Koulibaly yi. Mm. suñu défenseur boobu également dégg li mu wax ci moom mu ne du fàtte mukk kaddu yi nga xam ne moom la ko mujjee wax. Mm. donc football Abedi Abedi Pelé Abedi Pelé Ronaldo Roger Mendy voilà le monde du football a réagi quoi très plate pour le Platini, football Platini ak ñeneen ak ñeneen bref le monde du sport du football notamment a réagi mais c'est tellement vrai que en Argentine ils ont décrété trois jours de deuil national ah, xam nga nag bu defee trois jours de deuil national d'habitude dañ koy jagleel vraiment nit ñu mag a mag ñi mhm. euh, bu ñu ko defee ci réewam donc dafa fekk ne kon am na fu sore fu ñu ko teg mhm. donc euh, voilà bu weesoo men monde du sport bi euh, monde culturel bi nga xam ne maa ngi cee yëngatu mhm. dama la bëggoon yóbbu ca mm, ci population yi nekk village u euh, commune Morolan mhm. foofee dafa am euh, li ñu naan euh, gestion catastrophique dem ci distribution de l'eau xam nga coowal ndox bi nag moom dafa mel ni Sénégal coowal coow coow sans fin la ñun Sénégal ndoxal ndoxal wër Dakar mhm. ak lu ci ëpp ci Sénégal wante daal dafa mel ni ñun ak ndox daal doy na waar oustaz ñu dem Morolan dellu si yorin bu jégg dayoo ci wàllu ndox bi nga xamee ni indil na jafe-jafe askan wi yeewoo ca Tiviñ tàngoor ak li ko wër ci commune bu Morolan ci département bu tibaawan tax na sax ba askan woowee sànni ki yuux ni daal bëggatuñu fee gis Aquatech lenn waralu ko lu dul ñàkkum ndox bu tar bi nga xamee ni moom la ñu jànkoonteel ndaxte Aquatech du fay seen Senelec yi askan woo xam ni daal dañu wane seenub naqar mer ba fut takk ay sekkit yi xonq ni daal lii mënatula wéy Etmé Sambou yore kàddug jigéen ñi yeewoo ci goxug Morolan jigéen nañ ci ndox mi ngay xëy di wuti ndox fajar gi pour nga teel a ñëw balaa ngaa egg si kër ga ba defar ndékki nañu ne nii de laa yenoo bu ma yenoo nii ba ci yoon mais ba tey sonn nañu sonn nañu franchement bu ñu nee sonn ñu rek dañuy fen jigéenu jaasa sonn nañu xale yi sangootuñu xale yi fóotatuñu kenn defatul dara fu mu nekk nii benn siwo ndox ngay am toute la jour boo ci toggee añ jeex waati yéen tàngoor nag ñoom dee nañu ay ati at siwo ndox bi lu mu lay njëriñ dara fi mu ne nii maa ngi taxaw fii de waaye dama war a wuti ndox de ndax sama waa kër dañuy gontu dañu war a sangu sanguñu démb ba duñu sangu tey sonn nañu ne di loo xam ni lii li ko gën a taral moo di factures yi jéggi dayo yoo xam ni di ñu ko gis ba tax sax ñuy ñaan nguurug Sénégal mu delloo leen seen forage Jean-Philippe Déthié Gaye ak Alaaji Fall nekk ca Ngig Fall di koy ñu am ci problème problème bi mooy ni courant bi dañ ko coupé te boo coupé courant ñëpp nga coupé waa Senelec ñoo coupé courant ndax dañ leen war a fay facture bi xëy na ñoom tamit dañuy naan am na fayul mais am na fay nag nañ nii sama tool maa ngi yaakaar pour liggéey pour jox sama njaboot tool ba yàqu na demuñu ci gaal agressé wuñu mais bu demee ak waa teg ñëw indi lu ndox parce que ah, fii ci TV Diassa ci Morolan pour Sud FM doy na waar jërëjëf euh, Babacar Sow euh, ci euh, jàngat boobee yi ñu leen nuyu di leen massawu également kon kilifa yi encore une fois ni ñu koy defee saa su ne saa bu nu xëyee suba ngoon guddi bëccëg population yi ci gox yeeg goxaat yi ci Sénégal ñu ngi leen di interpeller naan leen jàppaleen ci parce que dafa métti tar tar tar tar wante suñu ay njiit yi ak ñu nu ko sañ a wax boog euh, xeetu arrogance bi ñu àndal léegi maanaam euh, xeetu euh, sama yoon nekku ci wala xeetu waaw de toutes les façons daal maa ngi def lu ma mën. man daal je ne comprends pas quoi saa su ne population yee ngi ñaxtu ñu ngi xultu wante saa su ne kilifa yi ñu ngi mel nii ñu naan bon dinañ def lu ñu mën daal ci des moom yàlla baax na. <laughs> xam nga ah, en fait de toutes les façons daanu moom dajul suuf xam nga xam nga li xew foofu ci Morolan. fokk ñu bàyyi xel ñaari mbir xam nga OFOR mooy ñi nga xamee ne ñoo yore forage yi nekk ci biir àll bi euh, IFOR sax la tuddoon après mu tuddaat OFOR am na nag ñoo xam ne ñii dañ ko doon yore di di ci def ay ay mbir yoo xam ne dafa lëndëm gis nga sax tey euh, ci xabaar yi ci suba su FM def na ay pexe bi nga xamee ne directeur général bu OFOR bi moom nee na am na benn commité de suivi boo xam ne bëgg nañ koo taxawal feek ñeenti weer jàpp juróomi weer mu def benn rapport boo xam bi daañu ko teg ci taabalu njiitu réew mi pour ñu mën a solutionner maanaam pour ñu mën a saafara jafe-jafe yi nga xamee ne Euh, monde rural bi dañ ko am ci jamono yi nga xam ne ci loon toll ci wàllu ndox pourquoi parce que ñu doon gérer euh, euh, kii ndox yi ci àll bi forage yi ñoom ñoo doon def loo xam ne li jaaduwul am na ci ñoo xam ni dañ leen doon tuumaal na ñoom dañ doon lekk xaalis bi ay manifestation di ci am ba ñu changé waat nag léegi gouvernement bi daal di jël beneen doxalin pour mën a saafara loolu mais de toutes les façons muy muy effort muy muy muy muy muy Sen'Eau ak bu mu ci mën a doon ko mën a tuddee noo ko mën a tuddee ndox mi moom ñi ko yore leblewuñu mayewunu itam waaw keñ waaw leblewunu mayewunu moo tax mbokk mi ci biir élément bi nee na mm. comme dañoo fayul woon nu coupé nu mm. bi ñu fayee léegi ñi fay nañ leen delloo ndox mi mm. loolu mooy la wa dañ ne fayuñu ñu coupé leen loolu lañ wax daan mm-hmm. ko information boobu mm-hmm. léegi nag comme léegi comme nag fa am nañu fay ña fay kon li maandute mooy nañ leen delloo ndox mi ba beneen bi ci gannaaw loolu lépp nag mooy Sénégal waroon nañoo rus toll fii waaw. Hmm. xam nga maanaam ban amee indépendance ba léegi. Hmm. en 1960. on parle d'eau quoi ndox. waaw ah loo xam li c'est ndox. se dañuy wax ne l'eau vital en plus ndox def naa bu ñuy bu ñuy. c'est vital mais mais bu ñuy natt sax ci àdduna bi yëpp fépp ndox mooy li gën a yomb am na di réew yu bari yoo xam ne sax kenn dañ koy maye. waaw tellement c'est voilà ndox quoi ndox la quoi ndox ndox ndox. waaw xam nga sa son parle d'eau. waaw loolu lay wax nii moo tax ma ne la am na nu ñu doxale am na nu ñu doon doxale ci at yëlee ñu génn kon nëgë ni waroon naa mën a fekk ñu romb fii parce que tamit loo gis àddina rek dafa am ay ay suite logique yoo xam ne ay jeexital lay am. parce que ba ba ba fii état yi bëree bëri nekkee ba fi mu toll nii politique yi ñu doon def ci wàllu eau. Mm. ak programme yi fi jaar yëpp war nañoo dépasser fii. normalement mm. et tey ji sax waruñu woon a toll sax naan ay monde rural bi ñii mm. am nañ ndox ñi amuñu ndox parce que Sénégal dafa am benn position bu mu am. Hmm. stratégique boo xam ne bi ci wàllu politique wàllu géographie. Hmm. ak su suñu cadre yi fi nekk ci wàllu xam-xam. Hmm. waroon nañoo mën a fexe ba politique bi jëm ci wàllu ndox moom. xaw ma man réew waay waratu woon waratu a nekkati benn problème fii. léegi sax yow oustaz balaa ngaa wax sax monde rural. yow ndakaaru gii nga ne saa boo xëyee dégg fi coowal eh, ñàkkum ndox merci ah bëri na ci goxee goxaat yoo xam ne mm. amuñu ndox léegi man li ma jaaxal ci suñu ay njiit mooy euh, léegi euh, lu lu population yi wax rek lii métti nañu métti nañu faw ñu indi la ci ay contre argument nee la waaw lii am na wante lii ak lii ak lii ak lii lan moo tax en fait Afrique ñu am problème bu ñu par exemple si on n'a pas euh, atteint benn objectif wala ñu échec ci benn domaine lu tax ñu am problème pour. Euh, euh, euh, accepter accepter ne on a échoué ci tel domaine. et dans ce cas dañuy xoolaat beneen wala yeneen i pexe pour pour y remédier lu tax on a on a toujours ce problème la bokkul ci culture u nègre mu nangu loolu. loolu tubaab a ko man ah bokkul ci culture am. bu échoué mu nangu ne échou échec ah, waaw waaw ñu néew a ko ñu néew a néew ndegam sax ba nu néew. boo leen doon compter ci ci ci ci Afrique gii. Hmm. mais chef d'état yu bëri yi nga xam ne ñuy ŋànk ci nguur yi nguur yi nguur yi nguur yi nguur yi ban jëlee leen fa. Hmm. bañ a nangu dëgg. Hmm. gis dëgg bañ koo nangu moo tax loolu dal leen. Mm. parce bu fekkoonte ni tel nañ accepté ne lii lañ agsi agsi nañ fii nañu nangu lii. Mm. kon loolu du leen dal parce euh, président président Niger bi gaañu bërki démb euh, Tandian. Mm-hmm. Euh, jullit la ñu ngi koy ñaanal yàlla mais à un moment donné. Mm. daf doon bëgg a jàpp ci nguur gi ne du fi du fa jóge. Mm-hmm. pour changer constitution ba. bëri na ci morom bëri na ci morom. léegi nag loolu loolu loolu noonu bu fekkoonte ne nangu nañ dëggu yàlla gi. xam ne lu jeex jeex na. lu am mais dafa bokk ci nit ku ñuul. Mm. ci culture am. Mm. pour mu nangu pour mu nangu. Mm. gis nga tey boo li nga wax nii. soo tegoon loolu ci table danaa la booy mais aussi. daal ay ay verbe yu la indil affaire yoo xam ne c'est-à-dire boo leen déglu ñu lay jéem a théoriser nga naan mais c'est-à-dire que saa waay il est tellement évident que da nga échoué ci domaine bi mais nga ah, nga euh, assumer ko nga wax ko et puis nga xool nga nga jéem ñu proposer leneen et puis on avance. mais pourquoi on doit toujours tergiverser tergiverser dans les détails man je comprends aw lay aw lay bu dëgg dëgg. xaw ma dégg nga wolof yem déet. lay waaw bu guddee. bu guddee rek. nekkatul dëgg. yàgg naa dégg ñu naan yàpp xaj bu seddee soof. waaw lay aw hmm. lay mooy mooy par exemple quand tu des explications. bu dee hmm. dëgg rek ngay wax kay jërë muy gudd. déedéet mais bu fa nekkee verbiage di continuer def ay communication bu. Hmm. Euh, à variable géométrique. dugg fii génn fii. da ngay dem ba yow ci sa bopp sax da ngay réer ci li ngay wax. parce que da nga nekkul ci dëgg. xanaa xamuloo ne xanaa xamuloo ne wax naa la fii ne la wolof. yay noonam moo ko gënal am yoolu yàlla. sas yaa ngi wax encore loo xam ne Facebook day wax waxati nga. ci lañ dëkk lu man loolu la miis naa ko léegi xam nga man moom léegi dama vacciné wu ba nga xam ne yooyu vraiment ce n'est plus mon problème. c'est pas du tout absolument kon Facebook allez-y. waaw wolof. Hmm. yey noonam moo ko gënal muñ te am yooyu yoolu yàlla. dégg loolu tey su ma jàppanteeg yow wala comme ni nga ko waxee léegi ndox mi wala yi demee noonu. Hmm. yow ma fexe ba daaneel la yow. Mm. Nicolas wala ma yey la ci wax ji. Mm. mu ma gënal ma xam ni maa nekk ci dëgg te muñ te am yoolu yàlla. dëgg loolu loolu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si moo ko waxoon mu ne nit ku mm. mu jàkkaar lool. Mm-hmm. ba am ci moom dëgg ci mbooloo mi moo ko gënal mu muñ am yoolu yoolu yàlla. te pourtant nga nekk ci dëgg te muñ. te am yoolu yàlla moo gën ndax boo ko yeyee. c'est éphémère. te yoolu yàlla moom du jeex. moo tax nit ki ñaare dana dana dem ci wàllu politique. demin boo xam ne bii. Ah, politique bi moo koy politique waaye moom politikatul. déggal loolu. waaw day am. day nekk ci politique. waaw politique bi di ko politique. waaw wante moom mënul fexe ba. politique politique bi. waaw parce que day day dem ci mbooloo mu wax ba pare ñu ne ah. oh, waaye ñëpp xam du dëgg. Ah, waaw wala ngay wax ñaan ñuy tàcc rek. Ah. xanaa xamoon ni am na ku lay tàcc te gëmu la. Mhm. waaw. am na ku lay tàccu te mm. gëmula te loolu dal na fi ay ay leader yu bëree bëri mm. meeting ngay am mm. nga dem fab njaga jox leen ay ñaari téeméer ak ñeenti téeméer ñi ñiy tàccu dañoo xamuñu sax discours bi lu muy firi xamuñu sax sa objectif ah moo tax ma ne la nit ñi dañuy nax seen bopp dañuy nax seen bopp ba naxaale seen bopp sas nga ne damay jël suma suma ay nit waaw dugal ci ay yàpp leen ci ay njaga njaay dul jeex jële leen Dakar Kaolack Mbàkke Matam ay t-shirt ak t t-shirt ña may tàccu ñëpp. waaw li ngay wax xamuñu ci dara dara lañ ci xamul li ngay wax barke Rasulaay demal meeting ba meeting ba jeex nga ne ko sa waay waa lu mu doon wax du la wax benn benn benn programme. ci lim mais parce que loolu mooy politique gu politique gu nax sa ah. bopp. te xam nga lu tax loolu am. Hmm. yàlla dafa maandu. Hmm. booy naxee yàlla dalay naxaale ci biir nax ah. ah yow booy jaal booy jaay nandite en fait waaw ah foog yaa gën a nànd ñëpp oui boobu fekk na suñu borom moo ngi ne tekk di la di la seetaan ah ngay jéem a nax gaa yi suñu borom nag di la nax ci biir nax yi waaw parce da yàlla day fexe ba nga ba nga posé ay actes yu doyee dayee di ah. waaw ay njaga nga yeb ci ay maire yu yu mënta bind seen tur nga ñëw fay di làkk ay discours français naan on a fait ceci ñi ñu lay tàcc ñuy tàccu buñ ñibbee laaj leen lu ñu waxoon tout hmm. ñu ñu résumé la lu ñu doon wax ci hmm. meeting bi xamuñu ci dara man da jox nañ ma maître boobu dem naa tàccu naa ñëw naa mais parce que koy ñi leen jiite ñoo nekkul ci dëgg soo nekkul ci dëgg fokk yàlla puus la ngay def lu doyee di mais ki nga xam ne moo nekk ci dëgg. Hmm. il n'a pas besoin. Hmm. di fab ay 2000 francs kii di ko waxal dëgg rek. waaw hmm. ah. boo nekkee ci dëgg la sëriñ Abdoulaye Mbacke waxoon bu yàggee ku dëggu dana la fekk si. waaye bu fekkente ne yow li ngay wax ci ndaxee nga koy jëmale. acte yi ngay njëkk a posé mooy njëkk nekk acte yu naxe hmm. waaye nag loolu ñi am xel ñoo koy jëli hmm. ndax am na ñoo xam yaakaar nañu bu demul ci meeting hmm. wala demunu ci réunion politique dafa nañu demunu ci dara léegi gannaaw euh, oustaz nee nga euh, africain ci boppam nit ku ñuul ci boppam dafa am euh, problème personnel pour di reconnaître bu defee erreur wala bu defee bu amee échec mu reconnaître ba pare waat ba pare jéem a dem ci yeneen pexe ñoom daal noo noo def ñu ne la nii lay demee wante c'est-à-dire que lii moo koy explique maanaam dinañ la utal ay ay ay ay ay subterfuge yoo xam ne da ngay da ngay mujjee da mujjee mër léegi loolu naka ci pexe. naka ci pexe mooy gis nga Sénégal gi bul sori Sénégal gi ñu ne. Hmm. am na fi ci ñi ñi xam nag histoire réew mi laa wax ay jëwrin yoo xam ne yi tey jii normalement dañoo waroon a démissionner. Hmm. waaw. saa sànq bi ñu falee gouvernement bu bees yàggul. waaye gii ak ganeen ak bi sax lay tàmbale am na fi ñun fi waxal wala lu fi def ak ay ay ay ay hmm. yoo xam ne yii. soo amee xel tey réfléchir bu baax te gëm yàlla. da naan ñii tey dañoo waroon a fab seen stylo ne man tekki naa sama ndomb ak tànk waaye dañ cay ngooy moo tax man la ñun am na dañoo amul culture xam ne lu lii ma baax loolu tubaab yee ko man waaye ñun mënuñu ko. maa ngi waxtaan démb ak taximaan yi ma yi ma seet si woon euh, ñu maa nettali benn réunion bu ñu am ak ministre des transports bu bees bi Euh, xaw ma ndax am naam déet mais euh, dégg naa ci seen discours ñu ne ñoom dañoo dajeek moom mu naan leen xaw ma lan man li ma xam ci transport bëriwul ñoom ñu tontu ko nekko ko gannaaw yow li nga xam ci transport bëriwul lan moo tax nga nangu kon poste bi ñu la ñu la tabb euh, bu dee loolu effectivement noonu la demee. donc affaire bi c'est c'est c'est grave. mais boo doon boo doon boo doon trier. boo doon boo doon def ngay def le tri. ci jëwrin yi nga xam ne fi ñu leen dugal du seen domaine mm. kon nguur gi jeex di mm, mm, kon nguur gi jeex takk am na koo xam ne kii droit lay jàng ñu dem jox ko problème ah, technique benn technocrate ñu dem jox ko wàllu société bi dafa dafa jaxasoo dafa jaxasoo am na am na vétérinaire bu ñu jox xaw ma ban ban kii attends loolu day jeex fii loolu depuis loolu loolu du jeex depuis Abdou Diouf la woon ba léegi xam nga loolu mooy wane ne ñun dafa mel na ñun dañoo wàlliyaan ñun nit ku ñuul dañoo walliyaan alali tubaab bi wala xam-xamu tubaab bi ba noppi mënuñu ko maîtriser malheureusement euh, kuy dabee nag ba ñaar mooy am nga romb nit ñi baa doo yegg mm. euh, loolu moo am ñun nag ñun dabe dabe gi ñu doon dabe dabu ñu tubaab yi ak si wunu te ñu ngi ci diggante bi xamuñu fu ñu jëm doy na waar oustaz Maodo Faye jërëjëfati ñu dem ca whatsapp ba ak bu njëkk bi bu ngeen bëggee bokk ci bile émission jokkoo ak Nicolas wala Maodo Faye mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro whatsapp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53 salaamaaleykum salaamaaleykum Nicolas maa lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu sama ustaas boobu di nuyu sama sëriñ Alaaji Maodo maa lay nuyu di la ziar bu baax dama lay déglu nag lu bëree bëree bëri naa li ma xam daal ci li ngay wax ah jàngi naa ci lu bëree bëree bëri ndax dama lay déglu yenn yi sax dama koy enregistré moom pour gàttal rek ma amoon benn question mooy côté justice ak nit ñi àtte nit ñi daal maanaam nga juum ci nit àtte ba tëj ko. nga dem ba xam ne da ngaa juum ci ki nga tëj nii mu dem tëdd pen bu xaw a yàgg ñu bàyyi ko parce que deful dara loolu laal man moo jaaxal daal te ñii att tamit ñoom loolu mooy seen ëllëg ci loolu maanaam nga juum att nit ki ba tëj ko mu toog lu yàgg te yow mi att yaayaa juum. loolu daal laay posé question. jërëjëf mbokk mi ci question boobee dégg nga ni mu tàmbalee ne sa soppe la lool euh, bañ na ko ba euh, bu raté émission bi dalay enregistré ngir mën ko dégluwaat man mës na maa dal ma romb ak euh, waaye doon dugg ci benn bureau muy muy déglu Maodo Faye mais man nu mu demee ni <laughs> mais man je ne suis pas en direct waa ji ne ma moo yow loo foog bu ma ko raté direct bi mais dama damay def damay enregistré affaire bi hmm. wala ma daw ci YouTube ba ngir mën leen dégluwaat kon ñu leen di jaajëfal. ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñooñu mënuñu leen a fay. Hmm. nga nag wax dëgg yàlla li mu li mu laaj nii buñ ci dugalee li yàlla wax. Hmm. ak li réew mi doxalee. Hmm. dañoo bokkul. ndax yàlla moom na mu bëggoon atte woo ko atte wuñu ci mm. ma ma bamtuwaat ko nekkunu ci réew moo xam ne mii yi maanaam charte yi ci lay dox mm. réew mi dafay dox ci wàllu laïcité mm. léegi nag képp koo xam ne kii alxuraan nee na atte atte nga woo ca la nga xam ne wuute naag la yàlla waate man nga nekk faasix man nga nekk kaafir ni ko al ni ko alxuraan waxee te da ngay tooñ ab tooñkat ngay doon léegi nag kii li mu laaj moom dafa wax ne da jàpp nit ki ñu ne ko ràpp ci kaso bi. Mm. teg ko fa lu yàgg ñu àtte ko fekk yow ñala jàppoon ba àtte la ñoo jum ci àttam. Mm. léegi nag damaa xamul ba xam ndax loolu loi bi prévoir na pour ay ndàmpaay waaw wala déet ndax loolu man jànguma ko dama ah. ci mandu ah, ah xam a priori oui. ah, ah. enfin j'imagine que oui. pas mais de toutes les façons. mënuma comprendre ñu jàppale benn. Euh, bari na nag bari na nag ñu muy daal ñu dem ba jimbi jamono ñu xam ne dañoo juumoon ci àtte bi finalement du mm. woon yow keneen la am déet. Euh, duñ la jox ndàmpaay ce serait quand même un peu dina bizarre de damaa gisagul ku ko def di te man bés bu dama dégg fii ci ay yi depuis quelques années que diw dañ ko finalement mujj nañ ko libérer parce que mënuñu ko àtte wala. Ah nangam nangam dans ce cas oustaz il faut que il faut à la source de l'information. ngir mën a xam exactement juridiquement ndax euh, noonu c'est c'est prévu mais en tout cas man ne loolu incroyable na. Hmm. kon na dem ca ñooña. ñu hmm. jox ko ci mandu tey ñu jox ko. Hmm. la nga xam ne mooy ndàmpaay loola. Mm. waaye daal ci atte yàlla moom yàlla dafa waxoon ne ku attewul ci lu dul lii lam ca teg ay kalima la yoo ay kalimaat la yoo xam ne yii mm. dëppwul ak ni nga xam ne noonu la Sénégal di doxal kon loolu leer na ñu dem ca ñaareel ba ca WhatsApp salaamaaleykum sëñ Maodo ñu ngi lay ziar bu baax di ziar Nicolas maa ngi nekk fii si Yarax dafa am ay dafa am li nga xam ne dama koy def mooy dama taaj benn benn pot di si sotti ndox di jël ay ceeb di ko tuural picc yi ni ciy lekk may laaj ndax loolu lu baax la wala baaxul wala am na lu ko gën wala naka la na naka ngeen ko gisee daal ma ciy laaj xam-xam si loolu waaw ah, ay picc yi nag picc yi kenn moomul leen bon lu ñuy naaw ñëw foofu ma di leen di defal ndox ak ceeb toujours di leen di may may laaj ndax loolu baax na wala baaxul jërëjëf jërëjëf mbokk mi ci whatsapp bi ñaareel bi euh, gis nga de man fàttali na ma sama picc yi ñëw fii xam nga dama am baie vitrée fii ci studio bi dama am ay pitax ak ay picc yi ñëw sax suba teel bu may animé rek ah ñoom itam il faut euh, yooyu baax na oustaz di joxe pepp wala ndox nii picc yi lay jege si tout le temps waaye dama ne ci jaamu yàlla la bokk ah. man damaa seetlu fépp fu may toog d'habitude picc yi dañoo ñëw may may oh. joxe ay pepp ki ay ndox. loolu loolu lu baax la. Ah, xam nga xam nga xam nga dimbal. Hmm. dimbalante. Hmm. dëgg la ñun nit ñi yàlla nee na ñu def taawun bay na naa. Hmm. wante dimbalante googu di am. xam nga am na tamit wa taaw wa taawun alal birri wa taqwa loolu beneen la. mais dimbalante yemul ci nit ak nit rek. Ah. déedéet. Ah, kon dimbalante du humain ak humain. déedéet kon kon àddina du dox. àddina nit ñi ñoo nekk ci àddina ñoo nekk ci àddina waaye ñoom dong newuñu fi. déedéet. waaw léegi tey muus mi nga fekkoon muy xot xoti sax ci wetu mbedd mi nii. Hmm. nga xam ni kii boo ko fi bàyyee muus mu ndaw muy door a judd la ab oto mën na koo dër daal ci koom faat ko. Hmm. nga yëkkati muus mi teg ko ca ker ga. ci ci ci jëf yu baax yu sell yi la bokk. Hmm. waaw. est léegi nag ki fa peppam wala ndox. di ko jox njanaaw yi di naaw. da ci am tiyaabo. Ah. da ci am tiyaabo parce que mi ngi mi ngi dab bakkanu ñu yàlla bind. xanaa xamoo ne picc mii lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti di noyyi. mais yàllaa ko bind. ndeysaan mas ngaa gis ko defar am picc. déedéet. waaw waaw kon kay yàlla ko bind. Mm. léegi nag yàlla moom lu mu bind. Mm. ku teral la mu bind yàlla teral la. surtout loo xam ne day noyyi. te loolu ay ay ay ay ay amsaal ay misaal yu bëree bëri. d'autant plus que ñun daf ñoo jox leen ci benn xaj boo xam ne bii ah. loola moo tax kooku rëcc. Ah. ak yeneen ak yeneen. Ah, d'autant plus que suñu borom ñun daf ñoo jox xel te ñoom euh, maanaam ñun ñoo leen war a gën a réfléchir euh, ba àgg boobu niveau. est-ce que xam nga ne est-ce que xam nga ne nit ki mënta mënta dund ci kaw terre. Hmm. ci kaw suuf si sans les animaux. ay interconnexion la. ci mhm. ci ci ci ni nature bi di demee. Mhm. par exemple maanaam tout sa complète. tout se complète c'est une chaîne en fait. voilà léegi léegi yow garab gi. Mhm. sax sa kër dafa am lu mu lay jox. yow nga am loo koy jox. picc mi dafa am écosystème bi maanaam lenn lu ne dafa am lu muy réguler. picc mi am na rôle bu muy jouer ci société bi. Euh, petax bi naaw bu gën a ngande bi tan bi wala épervier bi. am na lu muy dox ci société bi ñooñu nag. suñu naawee ba ñëw sa kër nga fab ndox jox leen ko hmm. yu woyof la ñu a baax hmm. lenn nag laa mënul nag oustaz hmm. ma ci wax lu ma loo ci xalaat tamit loolu c'est ma question personnelle autant fu euh, damay faral di am ay picc yu bëri yu damay sentir ne euh, loolu man naturel ma noonu laa koy doxalee mais autant aussi bu ñu tëjee euh, ay picc ci case euh, bëgg ma jëndaloo pour ma libérer leen man dama am problème boobu en fait mosuma mosuma ko mën a nangu parce que je me dis euh, pourquoi est-ce que ñu war leen dindi ci liberté delloo leen après ñu demaat. capturer waat leen pour ñëwaat tëjaat leen pour encore jaayaat leen pour nga libérer waat leen moi j'ai pas compris ce système là pourquoi ne pas les laisser uniquement en liberté. xam nga xam nga xam nga ñaar dafa am xam nga picc moom am na lu yàlla def ci moom loolu sama choix personnel. non je suis d'accord xam nga picc moom am na lu yàlla def ci moom mooy picc du am du nekk fu naatul du nekk fu amul ndox. Hmm. la plupart du temps ci àll bi fu ñu bari rek. Hmm. soo xoolee ca suuf soosa suuf su naat lay doon wala fu bari ay garab lay doon wala fu fu dëll lay doon wala fu naat lay doon. Hmm. loolu la leen yàlla defal mooy njanaaw yi. léegi nag dafa am ñoo xam ni da ngay dox ci ndaka ndakaaru gis ñu yore ay picc. Mm. di leen jàpp di leen jaay. Mm. Euh, d'abord loolu loolu loolu waxuma jaaduwul. Mm. waaye rafetul. Hmm. rafetul parce que picc yooyu hmm. nga jàpp am na ci picc yoo xam ne xëy na ñu ngi doon nen ñu bàyyi fa nen ya léegi nen ba day mujj yàqu wala am na ci yoo xam ne xëy na ñu ngi amoon ba toccal seen ay doom hmm. yow doo mën a gis ñu doon wuti lu ñëw jox ko seen ay doom nga dox leen ci diggante bi léegi dagg chaîne boobu maanaam léegi doom yi dootuñu gis yaay ju leen jox ñu seen yaay ñu ñu ñu dee yow yaa ngi yàq yaa ngi yàq écosystème bi yaa ngi koy yàq benn beneen bi ci tegu tamit mooy euh, ñi ñi ñi ñi def écologie nga xam ne dañuy sàmm garab yee Mm. suuf seeg yooyu mm. ñoom la ñuy sàmmaale njanaaw yi parce que loolu mooy tax ñun suñ dund gi mën a équilibré mm. loolu ñooñu li ñuy def jaaduwul léegi nag ñiy jënd picc yi su fekkee dañoo lay wax da nga ciy ñaan nga sànni picc bi loolu xëy na euh, wax la joo xam ne ji mën naa am waaye bu fekkente ne loolu daal yàlla rek a tax ngay def kon kay boo julee ñaanal rek picc moom bàyyi ko mu dem yoonam su fekkee da am yërmande ci picc mi ah. loo ci ñaanati kon julli Euh, oustaz nga ne kon bu fekkee ne ñaan bi damay def tuut tuut tuut ñaan bàyyi picc bi euh, jox ko sa liberté ko picc du nangu ñaan yàllaay nangu ñaan. Ah, oustaz tamit yaa ngi wax lu gën a xóot encore. waaw ah, mais picc du nangu ñaan yàlla mooy nangu ñaan. xam nga dafa am loo xam ne dafa laxasu ci suñu aada. Hmm. ah jëlal jëlal jëmal jënd fukki picc yi nga daal cay ñaan. Euh, daal di koy daal di koy daal koy sarxe hmm. d' accord ñoo koy def ñoo xam fan ko teg du ma weddi seen xam-xam hmm. mais man jàpp naa ne ku julli ba julli fukki ati yàlla hmm. te li ngay ñaan munu cee gis dara dara dara dara ñaan ci am picc du tax mu nangu man loolu laa jàpp léegi nag bon nit ki adet ah, Nicolas jur réer yi. déedéet non damay damay déglu noonu. li ngay wax waaw waaw li ngay wax dafa xóot. waaw dafa xóot dafa ah. xóot mais il faut ñu dégg ko xel. bilaay léegi nag bu fekkee nag da am xol bu rafet rek ndeysaan fekk picc yëpp nga ne ah picc yi daal xaaral ma jënd leen lépp libéré leen. loolu moom alhamdulilah ñu delluwaat ci seen i nan bu leen jàppat yow def nga lu baax rek. dëgg la waaye booy yaakaar ba yaakaar ci am picc nga xam ne boo ko peesee du mat juróomi gramme ah wala 7 gramme wala 8 gramme picc dafa tuuti. ñun la léegi sëqal ñun la nga tàmbali bisimilah sama nangam ca sama yaa ngi picc picc moom d' abord yow picc mi li nga wax xamu ko picc moom déggul déggul wolof déggul pël déggul bambara picc moom mi ngi bëgg rek nga bàyyi ko ba mu dem yoonam yow nga nekk fanaan raat léegi ab nga. parce que yow yaa ab dof nga ko yow picc mi ngay waxal naan ko picc mi déggul wolof yow li nga wax xamu ko. picc moom ka état bi mu nekk. mu ngi bëgg nga bakk ba mu naaw. saa saa si duñ dem ci ñetteel bi. ay ba tey waaw salaamaaleykum. Maodo Faye ñu ngi lay ziar leen di ziar seen émission bi. mais man dama am benn message may wax. ma seetaan benn télé ñu invité fa benn waay ak euh, benn journaliste bu ñuy wax joog waa ji di wax naan journaliste yi dañoo corrompu journaliste dañoo corrompu même kenn tontuwu ko affaire bu metti na ma lool nag man nag du ma journaliste wax dëgg yàlla mais damaa damaa fonk journaliste ku si mel yow moo doon fay wax dëgg yàlla ak ñeneen ak ñeneen dama leen a fonk su ma déggee benn waay toog fii naan naan euh, journaliste dañoo corrompu yaa ngay journaliste toog ci côté tontuwoo ko ba pare di xaw a dëggalaale kooku moom daf daf daf ma jaaxal lool wax dëgg yàlla ah lool lool wax dëgg yàlla nag eh, tontu leen lool jërëjëf def ah, jërëjëf mbokk mi ci whatsapp oustaz dégg nga yéen journaliste yi yéen la interpellé waaw mais xam nga wax ji tam mën nañ ko mën nañ ko càmbaraat ndax dafa ne dafa seetaan ci benn télévision ci benn plateau mais ñi nekk ci plateau yëpp duñu ay journaliste nag <laughs> xam nga nag loolay problème bi xam nga léegi nag xam nga léegi nag hmm. mbir yi daa hmm. est-ce que ñi nekk ci plateau yi di wax yëpp ay taskatu xabaar lañ hmm. non ñi ngi tas xabaar yi mais est-ce que ñoom ñëpp ñëpp am nañ lu mat 2 pour cent ci xam-xamu métier mi loolu tam il faut ñu bàyyi ko xel léegi nag ñi nekk ci média yi da ci am ñoo xam ne ñi ñoom maa ngi ñoom a yem nag bu keroogee bu nee diw mi dañ koo corrompre nag kooku mi ngi engagé ki nga xam ne corrompre euh, corrompre mais moom dafa dafa dafa def li arab yi wax taamim daf ko daf ko généraliser daal na léegi journaliste yëpp dañ leen a corrompre loolu nag moom mandute ndax ñëpp nag corrompre luñu leen loolu moom mm-hmm. loolu moom amul mm-hmm. mm-hmm. am na ñoo xam ne ñi duñu duñu seen dañuy def li def dem seen yoon am na ñoo xam ne ñoo xam waaye daal li wër ci loolu mayu leen loolu kon waa li mu wax xamu ko ah. wala boo bu ne woon sax certain te certain ah. sax wóoru ko uh-huh. parce que am na yoo xam te mënoo ko wutal preuve déedéet bu la ci porté woon plainte plainte mënoo ko mënoo ko layal. quand même kooku nag ñu bàyyi wax ci air yi nii rek. waaw waaw c'est-à-dire il que on dit que waaw yooyu yëpp dara wóoru ci dara wóoru ci mm. te corruption dafay yàq am réew loolu mm. gaa dëgg la. Mm-hmm. mais nag euh, bu ñu fab nag lépp nag ñu xëpp ko taskatu xabaar yi nag. Mm. déedéet déedéet am na solo. oustaz maa ngi lay sant bu baax a baax. di la gërëm bu baax amati na solo na muy amee solo. saa su ne damay profité ci occasion bi ba nuy tàmbali danoo waxtaanee euh, Diego Maradona euh, Aziz Samb suma papa Euh, moom ci boppam euh, jot naa marqué contre Diego Maradona. kon nag xoolal <laughs> moo la gën a xam téeméeri junni yoon Diego Maradona. moom moom moom football kat la woon ne woon na Côte d'Ivoire. xam nga Sam moom ko xam-xam ne euh, football moom. baxoog moom mais nekkoon na Côte d'Ivoire. day foofu te man wax dëgg yàlla moom a gën a xam football nag. quand même quand même Aziz moom a gën a xam football. parce que man li ma ci ñot ñotti rek laa wax. Eh. c'est loolu nag information bu am solo la. voilà moo tax am na ñoo xam ne dañu am background gis nga nit. waaw nga ah. ko romb nii di kii fekk li mu xam. Ah. ak fi mu jaar. tey bu la waxee maanaam loolu eh, olof naan fu ma jaar ku fu fa jaar takk ban. wolof nee na boo gisee golo yi boo gisee golo yi. ñu yéeg ci garab yi naan cappax cappax ah, cappax. ponkalum golo toog fee di leen seetaan. Eh. daa fekk jaar na ca ba noppi. déggal loolu. waaw ah, parce que ah ponkalum golo toog fee. waaw dëgg la dañuy toog xoolal banque seeni loxo. di seetaan golo yu ndaw yi naan capa capa capa capa capa. parce que loolu ñoom jaar nañ fa waaw. non dama koo dund dama koo dama nekk nii ci village. ma gis maanaam magum golo yi. ñoom danoo toog ci kaw garab yi. rek jàpp seen jàmm. mais croiser les bras en plus. na pat xoolal yu ndaw yi golo yu ndaw yi naan capa capa capa di daw di daw di daw. coow lépp ñoo ko indi parce que mag mi moom xam ne lépp jaar na ci. wala bilaay dund na ko. léegi léegi léegi la expérience. voilà xam nga boo yàggee ci dara. da ngay dama dem ba loola. dootoo ci am lu ñu la ci mën a jàng. loolu loolu mooy moo tax ma ne la. Euh, dafa am ñoo xam ne dañoo am gannaaw. walaay waaw mooy dañoo am passé quoi. macha allah am na solo. merci oustaz euh, tey nag laay jël sama weekend hmm? waaw ba léegi bu ko defee na ma koy defee saa su ne ma fàttali Sénégal yi ah euh, weekend bu jotee mën nañ dugg biir Sénégal ñu bàyyi Dakar nooyi ñoom itam ñu féexal seeni i xol ngir yàlla euh, dee leen ko doxalee noonu. féexal seen xol féexal Ndakaaru. n'est-ce pas parce que oustaz Dakar n'est pas le Sénégal. déedéet week bi maa nga jëm nangaan xam nga nangaan. waaw bu baax nangaan a nga nekk fan. communauté rural de Fimela. ah xam naa ko mu nga nekk ca département ban ca Fatick. ci Sine la waaw région de Fatick. Mhm. oustaz euh, foofu ca Sine Saloum fa laa jëm week-end bi. waaw léegi Saloum maa ngi nii di la defar promotion léegi intérieur du Sénégal. waa déet déet bilaay walaay xam naa réew mi nag de ah di ah di kon xam nga ndàngaan boobu xam naa ndàngaan xam naa siin googu nga Fatick googu waaw buur siin ya fa ne sax xam naa leen ah di waaw ñoom bi seen mbag xam naa leen bu baax <laughs> macha allah macha allah jërëjëf <laughs> jërëjëfati oustaz Maodo Faye kon nag euh, sénégalais yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bu week-end jotee euh, na ko ñu bëri di defee ñuy faral di génn ndakaaru euh, féexal ndakaar féexal seen xol itam itam te baax a baax bu baax parce que Dakar n'est pas le Sénégal évidemment merci à tous de nous avoir suivis nous étions ensemble depuis 9 heures avec les sponsors qui vous ont accompagné ndox mu sell mii di doxu waalo xam naa bu may dem nangaan ndoxu waalo laa fay yóbbaale jombul sax bu ma demee nangaan fekk fa ndoxu waalo tàngal bëgge mi ànd ak euh, Balla Gaye ànd ak ndekki li euh, leader day ànd ak i leader kon tàngal bëgge ñoom ñëpp gunge émission leader ndekki li émission nandite yi jaa ngeen jëfati euh, bon week on se retrouve la semaine prochaine d'ici là n'oubliez jamais viser la lune dans un instant les infos laata loolee lépp nag ñaan gàngoog tàllal leen bismillah ci darajay xadiis yonent bi ci darajay salaatul fatih ci darajay malaikatul muqarrabin ci darajay aqtaab ci darajay ci daraja awliyaa urrahmaan ci daraja ay met ak masaayix yàlla may nu jàmm ju mat may nu dund bu mat sëpp may nu ndox mu mat sëpp may nu teraanga bu mat sëpp may nu jàmm ju mat sëpp may nu paj yaakaar ju mat sëpp may nu wér gu mat sëpp may nu wérle gu mat sëpp may nu dund gu mat sëpp